mois de mois de mai wala yoy defoon na fi ouverture dialogue national bi en 2016 non mhm, mhm. biñu ñu dialogue national bi mhm. mais dialogue national du du du nit ki ouvrir dialogue bi rek moy indi sujet wu dialogue bi nañu ñew man buma déggé déggee Abdoulaye Wade sama mbokk Kébé maire bobu buma ko déggé muy wax ni bëggul dem ci dialogue li ak li ak li mom deful liko war mom at yi mu am ak expérience bi mu am dafa waroon tëdd njaaxaanaay sénégalais yëpp fekk ko mu ñuy jox ay idée ci dialogue yi. Mm. mu ñuy jox ay di ñu gindi ci dialogue yi di ñu woon yoon yi ñuy war a jël. Mm-hmm. Sénégal yi wëlbatiku nag màggal ko. Mm-hmm. man jot na tey ñu màggal Abdoulaye wadd defetam 2012 jot nañu dépassé ko. maggal mm-hmm. ko mais xam nga bu ñu ko bëggee màggal nan lay def. day tëdd njaaxaanaay xam ne moo jur sénégalais yu bëri. ñun de ñun ñu am ay mbokk Kébémer moo ñu jur li ñu bëggoon mhm. mooy mu tëdd njaaxanaay mhm. te bàyyi par parloo mhm. ku am at yi mu am expérience bi mu am notoriété internationale bi mu am du par par loo day tëdd njaaxaanaay sénégalais yëpp uufu ci moom parce que loolu mooy wàllam ñun sénégalais yëpp ñun jeunes yi ah, ay doomam yi ñu wëlbatiku ñu wëlbatiku màggal ko loolu mooy li waroon a am tey. xëy na mu fekkit ngeen jox ko cër bi nga xam ne yellool na ko. ñi ngi ko koy jox. bi euh, euh, président Macky Sall ñëwee ci pouvoir bi ba léegi. Mhm. ni ñu changé statut ancien président de la république. Mhm. ak moyen yi ñu leen jox. ah mhm. hein? ak du passé te oto bu bees duggul wala euh, salaire bi ñu revoir ko à la hausse ak yu mel noonu ak personnel de bi koy entouré ñu ñu dëgër defaraat ko ba mu gën a dëgër ñaar lañ ci am. barewul lewuñ ci ñu ngi leen di toppatoo ni ñu gëmee ni mën nañ leen toppatoo noonu mais mm. moom ci ab boppam Ablaye Wade moom moomu jógee Kébémer moo war a xool nañ daan doxalee Kébémer mu mm. tëdd njaaxaanaay uuf sénégalais yëpp mm. uuf doomu Sénégal yëpp uuf xalaat yëpp uuf pensée yëpp kenn ku mën a xalaat xalaat bu dépassé li Abdoulaye Wade di xalaat très am nañu am nañu ni nga gisee ah mag moo war a tane et cetera mais am nañu gisee ne monsieur le président bi nga xam ni conseiller nga ci moom moom it war na taxaw taxawaayu doom ak fi mu jaar ak Abdoulaye Wade confiance bi mu am ci moom yi mu ko fi dénk ci ndomb et cetera ñenn ñi dem ba gis ne moom it kenn waru ko caa jiitu ci juboo googee xibaar wadd na tey sax ni soxna Marième fay saal jéemoon na dem seeti góor gi fekk muy noppaloog yooyu foogoon ni jot na nit ñi baleen ñoom ñaar ñu jéem a waxtaan juboo ci dara. jot na jàmm ñëw ci diggante sénégalais yëpp. astema mm-hmm. Mm-hmm. suñu ancien président yi. Mm-hmm. jàmm ju dul baara yëgoo diil. jàmm quand comme ni ko ñëpp bëggee amul jàmm baara yogoo jàmm jàmm jàmm mooy ñu def ba Sénégal wëlbatiku màggal Abdoulaye Wade. Mhm. mais sa Abdoulaye Wade am na yoo xam ne waratu ci dugg mag la. Mhm. par parloo ak wax ju ñaaw warul mag. Mhm. mag day wax loo xamante ni ku ko nekk li ëllëg. mu doon lu ñu mën a répété. doom ji du point d'achoppement bi. tey gi tey gi ñeel doom ji am ñu ne def na am ñu ne deful amu leen preuve. exilé nañu ku jur doom ku jur doom ku jur doom. bëgg ko. bëggal ko lu baax c'est normal. Mhm. mais kenn mënul bëggal sa doom lu ëpp loo xamante ni doomu jàmbur du ci gis boppam. Mhm. kenn mënul gënale sa doom ba xeeb doomi jàmbur. Ah, ah. bëgg na doomam c'est normal doomam citoyen normal la. Mhm. li mu def yépp moo ci responsable doomam c'est pas un mineur léegi loolu nagn ko lijjanti. Mhm. nako ko bopam domam mais mom Abdoulaye Wad, mom l'a wax moom Abdoulaye ne mhm. na tëdd njaaxaanaay. très bien ma fàttali bokk yi une émission yoon wi ngeen di déglu ak RFM ñu dalal monsieur le ministre Abdou Aziz Mbaye nekkoon ministre de la culture dit ministre conseiller jamono yi ci wéti président de la république. Macky monsieur le ministre wax ko ci opposition euh, gouvernement bi dialogue bi nga bëgg euh, li nga xamni taxna na ci confiance euh, ci sa gis-gis lan confiance la neutralisation bi fi mhm. la externalisation bi fi amoon yooyu yep meun nañ ko dépasser. Mhm. bi Abdou ko defone bi Abdoulaye Wade ko président mhm. facilitation facilitation mooy nga jël nit koo opposition mhm. façon la rek ah, exemple lay joxe. nguur na réunion bi nga opposition di partager ak euh, gouvernement bi. Mhm. pour tëral mbiri élection bi. ñu toog defal calendrier de travail. boo xamante ne dañuy wax ni dañuy gisee bis bi bis bi bis bi bis bi ba keroog ñuy woote. Mhm. ñu defar li ñuy wax tableau de bor mu ni bis bi lii danañ ko sottal. Mhm. bis bi lii dañ ko sottal ba loolu jeex calendrier euh, tableau de bord ñu teg ko ñu ni léegi nag nit kooku day toog ci diggante ñaar ñi di jàppale dëkk bi di jàppale réew mi. di mhm. jàppale askan wi pour que loolu nit ñi d'accord mu am. xam nga kenn matul. Vous savez bu fekkente ni lu président ci gouvernement la. Mhm. te mu ci gouvernement mu ko ah, nga nañ facilitation a dox. Union européenne facilitation politique ci Afrique du Sud. Mhm. ba li Truth and Reconciliation Commission. Mhm. Afrique du Sud ci apartheid. Mandela bañ nit ñu ñuul ñi wëlbati ko di fay ci nit ñu mhm. mu def commission dëgg ak juboo mhm. hein? Union européenne moo financé boobu projet. yaa ngi dégg. Mhm. ñu jóge fa ma ñëw yi ak forestier yi européenne dox ci fa affecté ma Pacifique fo xamanteni il il Salomon ñu fay reyante ba bëgg a ma dem Afrique du Sud jële fa Desmond Tutu ba ma àndaloon ci Truth and Reconciliation Commission ci Afrique du Sud Indiko ko Oñara ci mm. capitalu il euh, Salomon mm-hmm. Niko ko dimbali ma nga jubale sa mbokk yi parce que ay catholique lañu comme yow mm-hmm. te bëgg nañu dox ci yoonu Truth dëgg yoonu comme euh, euh, réconciliation euh, mooy juboo mhm. Desmond Tutu tëral ko fa ba tey pa Salomon il Salomon nga ne dox ji loolu nit ñi xam nañu ni muy demee. Mhm. dama jël sama exemple bopp. man mhm. mais am na ñu bëri ci Sénégal. ndegam ñoom ñoo man loolu xam ñun nga xam ni. ñun ñi ko jotagu jotaguñoo reyante sax. jotaguñoo reyante. mën nañoo toog waxtaan mën nañu waxtaan amul kenn gis nga nag boo leen gisee fi mu ne. politiciens yi wax di ci rajo bi nga def ni bu subaa dëkk tak <laughs> boo leen gisee ñu toog di waxtaan nii. ñu mën a waxtaan ñu déggoo lañu hmm. ñu mën a ànd lañu dëgg la maintenant du ñëpp ga gaa mais dafa jot aussi ñu ñu muy métier la wala boog activité la bu ñu war a moraliser aussi parce que yenn taxawaay yi bu ci amee ci wàllu escroquerie ci wàllu njublang naxe ak fexe ni gën a muus ñëpp comme ni ngay wax par exemple yuuxu ci kaw jaar ci suuf waxtaan yi yooyu tamit dañ ko war a dakkal sellal nag taxawaay gi war nañu dakkal loolu sellal euh, liggéey bi hmm. bu ñu waxee ci dialogue politique bi hein buñ waxé affaire élection mhm. financement des partis il mhm. faut fofu buñ koy wax 300 mhm. partis Ce n'est pas normal 47 coalitions n'est pas normal mm -hmm. dou nous deug 300 partis nous def lo xamanteni dañu beddi euh, euh, partis parti yi nga xam tekki wuñu dara ci dëkk bi. moy les néants politique li ma doon wax légui duñu ay néant ay néant lañu. ñooñu ñu génn leen ñun leen amatu leen parti. mënatu leen wax mbiri politique. mais il faut ñu amal ak ségg nak dans un premier temps. segg boobu la ñu war def parce que néant yooyu tamit ce ce ce ce sa njiit yor na ca de benn bokk yaakar am nañ ca <laughs> opposition bi am na ca. baaxul ay tur rek nga baaxul baaxul. momu mhm. gox taxul doon représentatif national. Mhm vous hein? kuy def politique da ngay bëgg boole mais gox rek. Euh, représentant national. Mhm. donc dañoo war a de telle sorte que parti politique am sens ci Sénégal. 300 partis politiques day ñàkkloo sens parti politique yi. Mhm. day indi li ngay doon wax di ci négocier ak di wax ni def gox gox. Uh-huh. solo. Mhm. na dignité. man mënumaa yor parti di wax ni yore naa parti te sama parti man rek la mhm. moom parti moi-même mhm. mënta am mais parce que dañ cee gis njariñ monsieur le ministre boo gisee euh, euh, njariñ booboo war a dakk njariñ booboo war a dakk Assane réew mi ab ab séddoo la Assane loolu loolu ñoom ñoo koy jéem a joxe comme image Non, mais les, les, postes sont là, attribués de gauche à droite. Hein. Non, Beaucoup de ministres conseillers, beaucoup de chefs d'agence, beaucoup de beaucoup, beaucoup, de ministres conseillers. Mais nous on a retrouvé une grande coalition. Mhm. C'est-à-dire que nous avons qui Maki 2012, par exemple, ou nous avons qui Benno euh, Sigil Sénégal, ou nous avons qui Benno Andak Tanor, ou nous avons qui Benno Bok Yakar Boumakbi. Mhm parce que amna ñu bokkul ci. Mm. d'ailleurs gars yi dañ leen attaquer comme vous en faites partie ministre conseil gars yi dañ euh, amna ku junj sank suma ma euh, euh, honorable député Oumar Sy bu ne moom gisul sax njariñ li qu'est-ce que cela vous fait yow yow yow jàpp nga ni sa taxaway ci wetu Macky Sall amna na njariñ. <laughs> oui vraiment amna kay ma wax la len Assane <laughs> Assane waxna naa ben nit ni ko man at yi ma toll. rus mm. ak juddu bima am Rusna naa. Mm-hmm. taxaw. Euh, di def loo xamante ni dama ci yaakaar. lu ma amutoon parce que defe naa ni li ma yàlla may ba léegi. Mhm. dootuma may lu ko ëpp.